auzubillahi mina sheytaani rajim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonentam bu tedd bi ñu ngi ñaanal yàlla xalif général des mourides mën Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér euh, di leen gërëm si ah, seen euh, émission bi ngeen xamante ni bi ñëw ngeen fii pour taataan ah, mën a informer sensibiliser euh, population wu Touba Euh, si affaire élection yi ñuy dënmal kooku tamit wax dëgg yàlla ñu ngi leen si gërëm. waaw bindu bi dafa am solo. 2018 di dama ni woon ni carte yooyu toll woon ni si ay 27000 fi mu nekk fii dem na ba tabaar fakàlla xanaa presque lu si lu si lu si des war na mel ay 12000 cartes yooyu dañu toll pour di ko war a distribuer te gëm naa ni euh, jamono ji euh, commission yi nu ñu nu ñu ñu duggee si biir dëkk bi. ñu ngi distribuer carte yi euh, ak ak ak doole te tamit di gërëm tamit chef de village yi parce que ñu ngi ma see jàppale nu baax a baax a baax pour euh, informer nit ñi waaye tamit di si gërëm waa forum civil ñi nga xam ne dem nañu sur le terrain. ñoom it di informer ni si leen jàppale pour ñu dem jël ji seen i carte di gërëm tamit même waa Croix-Rouge ñu ngi yëngatu si loolu pour pour jàppale nit yi ñu informer leen ñu ñu dem ñu jël ji seen ay carte loolu tamit euh, DGE tamit ñoom it def nañu benn genre kii liggéey bu am solo parce que dañuy envoyé même ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo concerné surtout si bureau de vote yi nga xamante ne bi centre yu bees yi ngeen di wax comme bo bo boobari caa booreel caareen ay Daaru Tanzil euh, be n'est-ce pas Touba Njaareem ak euh, Mbacke Bari yooyu nest pas ñooñu ñëpp tamit ñu ngi leen di envoyé sax message pour wax leen ni dem leen ngeen jëli ji seen seen nouvelle carte yi maanaam ñu tuddee duplicata parce que ñoom béréb yooyu ñu bari dañoo jàpp ne am nañu carte d'électeur rek ak carte d'identité rek seen yoon nekkatul si kii bi alors que ñoom ñooñu dañu dañu leen defal nouvelle création donc il faut que ñu am duplicata ñu war a dem ñoom it jëli ji seen i ay carte yooyu yëpp tamit si information bi ñu ngi leen di sensibiliser si loolu yëpp pour que wax dëgg yàlla ñu ñëw jël ci seen carte balaay le 24 février 2019. gis nañu ci euh, matériel bokk nañu suñu yëkk jot ci Sénégal ndaxte tolluwaayu dëkk bi la fii si Touba maa ngi ak 291 194 électeurs dégg nga ah, te loolu Touba kese kese kese. am na deux cent soixante dix huit mille huit cent trente électeurs mu toll donc yëpp si six cent trente sept bureaux de vote donc xam nga loolu tuutiwul kon. Euh, bu ñu paree au niveau du central ministère de de de de l'intérieur Touba la ñu njëkk wax ne gaaw leen ngeen yóbbu euh, ay bulletins am moo tax depuis démb démb man réceptionné naa samay bulletins yépp ak matériel bi yëpp fi mu nekk fi man lépp mat na daal te gis nga si suuf bu ngeen fi ñëwee si suba pas gis ngeen ñu ngi def conditionnement bi waaw ñu ngi conditionné matière lour bi moom yëpp mettre nañ ko en place léegi bulletin yi rek ñoo desoon ñu defar dajale leen euh, ku def conditionnement bi ñu mën ko yóbbu si si si si kii te kooku nag euh, teel na pour ñu yóbbu ko léegi. bâche yi nag moom tamit tabaarakàlla yëpp euh, ku ko war ki installé mi ngi si terrain bi di ko installé provisoire soo koy defar doo toog ba ñu ne semaine moo des da ngay gaaw a jóg. parce que dafa bokk si da ngay fàggu waaw dañuy fàggu teel teefal bâche yi garder leen ah ba nga xamante ne bi euh, wax dëgg yàlla bëgguñu daal dara dara dara tardé si élection yi dëgg nañu daal lépp mat na lépp tegu ba nga xamante ne bi le 24 février incha allah à 8 heures nit yi commencé voter. fi mu RAS rien à because euh, moo man nag xam nga man gan laa fi wax dëgg yàlla tey ren laa fi soog a. waaw xam nga tamit nekk naa gan waaye gis naa ni tolluwaayu dëkk bi tolluwaayam si wàllu élection tolluwaayam si wàllu bureau de vote. tolluwaayam si aussi euh, wàllu kaaraange yëpp tamit dañ koy jël ndaxte tamit euh, euh, loolu yëpp pour rek élection yi mën a jàll donc da ngay gaaw dangay ngay da ngay da ngay teel a teel a teel a pare waaye doo nekk ba ñu jub si élection yi wax dëgg yàlla nit yi di def yéen boo boobaa sax électeurs yi nga xam ne bi sax dañuy war kii dañuy commencé seen xel de du dal léegi ku gis lii déjà nga xam ni ah ñii kat pare nañu pare nañu ñun nag. administration lépp li nga xamante ne bi war nañ ko euh, matal ba bésu 24 euh, février euh, askan bi mën a jóg ku nekk jóg mën a dem xam fa ngay voté jël sa nga jël sa carte nga dem nga voté ji ñun daal condition yooyu daa daañu fexe ba population bi ñu teg leen si condition yooyu tegal leen tamit sécurité bu mat sëkk incha allah. gis nañu ne centre de vote bu université Cheikh Abdou Lahad Mariane daan posé problème ndax kii ba nga xam ne dajaloo nga xam yu ne am na ay coppite yooyu yàlla. yu mag sax xam nga foofu daan na am presque cent cinquante et un de vote ñoom ñëpp ñu duggal leen si benn béréb muy waa université muy waa Daaru Xudos Daaru Xudos 2 ak waa Madiana euh, Daaru Xudos kese kese kese rek nekk na quatre-vingt-quinze bureau de vote tabaarakàlla bokk na si gën a rëy si bureau de vote yi kooku rek doy na sëkk kooku nag ren nag moom rek lay bàyyi si biir université bi. Madiana waaw Madiana dinaa ko génnee naa ko si beneen beneen beneen beneen kii bi euh, côté bi euh, Daaru Xuddoos de tamit teg naa ko si beneen wàll ba maanaam ñoom du ñu bokk connexion bokkewul ak dara ak moromam loolu tamit dafay andi jàmm mooy tax donc nit yi mën a voté si jàmm waaye boo xante yëpp nga tënk leen si benn béréb loolu si seen wàllu bopp sax euh, non loolu loolu baaxul woon jël yoo nañ si ay mesures yu mat sakk incha allah ñu ngi dajale ñu nga xam ne bi ñoo ko ñoo ñoo ñoo fare kaaraange euh, kaaraange yi ñoom ñëpp daañu taxaw xam nga fii nag dana am côté bu police di gérer dina am wàll bi nga xam ne bi tamit euh, gendarmerie yi ñoo koy gérer macha allah ñu ngi étudier nañu loolu yëpp te bu bës ba 48 euh, heures avant scrutin bi di démarrer daañu mettre en place les forces de l'ordre xanaa rek euh, di sant yàlla rek di ñaax nit yi rek nañu gaaw rek ñëw jël carte yu des yi pour que bu ëllëgee ku nekk dem euh, mën a mën a voté si jàmm euh, ak teraanga nga mën a ñibbi si sa kër waaw loolu daal la ñuy la ñaan nit ñi Sénégal dëkku jàmm la jàmm la ñëpp di wooti donc fii si Touba tamit mu nekk dëkk bi nga xamee ni bi royukaay la si Sénégal je pense que bu ñuy wootee jàmm fii ma war a ëpp jàmm donc euh, ne si ñëpp dox taalibe murit nag dafa war a tënku si si si ndigal te xalifa général sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér loolu la woote jàmm kon nag ah, ñun ñëpp loolu lañuy ñuy woote ñëpp nañu woote si jàmm ñu xam ni Sénégal ñu ñoo ko bokk Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar euh, te ñu xam ni tamit ëllëgu 24 février Sénégal day continuer di dund di am Sénégal moomuñu ko sunu donn la dañ ko doon suñuy ay maam suñuy ay doom ay suñuy sët tamit dañ koy dañ leen koy donnale donc nañ leen donnale doon bu rafet.